Euh, ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier vraiment di remercier sénégalais yi fi teew yëpp comme toujours gis nañu leen les militants de Yewwi Wàllu les patriotes sont la vraiment comme toujours rek di représenter li nga xam ne moom mooy Sénégal parce que fu waay mën a nekk ci Sénégal injustice bi nga xam ne mi ngi ci biir Sénégal yaa ngi koy sentir donc suñu frère patriote yooyu ñu jàpp tëj leen ci biir kaso bi ñooñu la ñuy exiger ñu libérer leen ak tappale bi nga xam ne mi ngi dox si suñu dëkk bi ak dina Macky Sall troisième candidature ñun dañ koo xalaatul ci Sénégal ba muy am parce que liñ fi gis ci Massi ba rek doy nañu donc loolu moo waral ñi fi ñëw nii yëpp tey teew suñu ay kilifa am di rijal bëgg sëñ Touba suñu waajaa ngi nii euh, suñu kii mooy suñu trésorier euh, Pastef kii tamit euh, muy suñu beneen frère bu am solo waaw fii moom defe naa gars gars yi moom boo limee juum Cheikh Anna ngi fële laqatu voilà donc defe naa defe naa taxawaay bi tey buñ ko gisee képp koo xam ne gëm na Sénégal c'est toujours les même figures et aussi mënuñu fàtte aussi suñu sœurs yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ginnaaw gis nga leen suñu yaay yi suñu sœurs yi comme toujours dañ fiy ñëw fépp fu ñu dem rek vraiment dañuy ñëw ñu représenter Sénégal dignement donc vraiment ñu ngi jaajëfal waa Sénégal bu baax a baax di leen remercier ci temps bi ngeen jël pour ñëw couvrir la ñu suñu événement bi merci beaucoup. Euh, vraiment ñu ngi remercier Sénégal di remercier tout le peuple sénégalais et tous les militants euh, de Yewwi wàllu askan wi puisque ñoom ñoo taxaw fii aujourd'hui des militants engagés se sont euh, ont laissé leur travail bàyyi nañ ñun ñëpp suñu liggéey ñëw fii def suñu manifestation vraiment. boo xam ne kenn yaakaar woon ne dana yegg si fii li ñuy wax c'est une réussite totale mission accomplie tout ce qu'on voulait mooy que le le monde sache que on a un dictature chez nous et qui doit partir loolu mooy suñu main objectif et aussi qu'il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques voilà gars yëpp def nañu liggéey li ñu waroon a def bàyyi nañ son liggéey ils ont très bien fait Il y a, ici, des militants et de l'autre côté, il n'y a que des sécurités engagées. Donc, euh, le, le, parti au pouvoir n'a plus de militants dans ce pays-là. On, on les a laminés. Nous avons laminé les élections fii rek C'est des gens venus au Sénégal qui sont là-bas et des sécurités engagées. kon boo gars yi ga euh, ñuy wax gàcce ngaalaama seen euh, jaan wàcc na def ngeen li ngeen a waroon a def yéen ñëpp vraiment congratulations à ce groupe là c'est des gens très engagés yoo xam ne foo leen yëkkati rek ñu jóg. non à la troisième mandat Macky Sall dictateur. oui ma. Macky dégage. Macky dégage.